dalleen ak jàmm ci lii li kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi Quotidien nag kañ la ñu toog dëgg dëgg nag ba bésab la mu mu jeex te duñu wax ne fenn sàcc nañ fa tuutànk jirikaay bi ne li mel kay kenn xalaatu ko ndax ni ki rek la ñu mu jàtt benn soxna boo xam ne bi moom itam da doon bëgg rawale ab tuutànk yéenikaay bi di Rewmi Quotidien ne mbiri ma nga xewee ca Médina fa ko poste bu Médina ndax ni ki démb tamit euh, tuutànk bi mel yéenikaay bi bu toon askan wa fa nekkoon dëgg dëgg yi dañ koy mujj rawale ndax

woo mu tax observateur ne fi ñu toll ni koy tuut tànk yi dëgg-dëgg nag ci danger la ñu ndax ci diwaan bu Dakar ba ca diwaan bu Tivaouane tamit am na ñaari tuut tànk yoo xam ne dañoo mujj rëcc waaye ñu toll li lay saafara du leen lu may réew Sénégal ci boppam ñu def ci ndëpp yi ni info ne li jar dëgg-dëgg kay mooy tuut tànk ak jafe-jafe ñu nekk kan mooy ministre bi nga xam ne bi moom la ñu tànn mu saytu lépp lu jëm ci nekkin tuut tànk ka taral gi mu nekk fi ñu toll jaaxal na dëgg-dëgg askan wi bu fekkee ne waajur yi ñi ngi aar yi ñu nekk ci kër gi kan mooy aar dëgg-dëgg xale xam ni ñoom ñi ci mbedd mi njiital Pastef Ousmane Sonko ci réew mi quotidien saafara bi daal ci ñi xam ni ñi rey doomu aadama yi ak di rey tu tànk yëpp du lenn lu may ñu fexe rek ba peine ñu appliqué ko ci réew bu Sénégal képp koo xam ne kii jàppati na nga ko ba xam ne xel ne dangaa faat doomu ñu faat la ginnaaw lu jëm ci phénomène tout tànkeek sàcc giñ leen sàcc ci réewu Sénégal yéen i kaay yu bëri xëy nañ tey tamit lu jëm ci toogaayu ñoxtu bi nga xam ne bi opposition bu Sénégal mi ngi ko doon amal ni ci banlieue bu Ndakaaru ak lu jëm ci nemmeeku commission d'inscription yi ñeel wàllu mi ci liste électorale yi yéen i kaay rek ñoom tey dëgg-dëgg nemmeeku nañ lu jëm ci commission d'inscription yu bëri bëri yu nekk ca jëdd caray ko amal ni ki tey jëlee lañu fexe ba bu ñu wotee ci assemblée nationale lu jëm ci joint yi bu gën a dogo ci lu constitution bu réew bu Sénégal ñu taxaw ba bu mu fi indi yenn sopparñi Thierno Alassane Sall njiital république des valeurs teewoon ca ndaje ma ne fi ñu Sénégal dañoo rek yab yaay jàmme di wax waaye fi ñu président Macky Sall moo yées yaaye jàmme ki ñu ne moom itam ni muy doxalee yées na lool mooy njiitu réew bu Mauritanie réew mi quotidien waa Amnesty International rapport bi nga xam ne fésal nañu ñoom seen bopp duut nañ baraamu tuuma kilifa yu Mauritanie yëpp ne fi ñu lu jëm ci mbuum ak njàam donte ne jëlee nañu ko waaye ba fi ñu toll nii kilifa ko amal ci réew bu Mauritanie ñooñu Alioune Tine ci mi quotidien bi ñu xool dëgg ci mbirum boddantiku tamit koy gën a moo tax Alioune ak i ñooñam ne fi ñu toll nii li ñuy du lenn lu may ci nu mu gën a gaawee njiitu réew bu Mauritanie teg yoxo droit de l'homme yi nga xam ne da leen da teg loxo ñi nga xam ne ñi moom teg seen loxo ci bopp nguur gi dong moo leen soxal jamono ji Walf Quotidien ci waa parti socialiste ndax fi ñu toll nii waxuñu waaye ñi ngi rumuraat ci suuf ne parti socialiste ci boppam mi ngi waaj ngir samp kandidaam ci élection présidentielle yi ñu dëgmal nekkoon baram tuwaak yoon ak ni mu ko tegee loxo jamono ji tax na dëgg-dëgg ba fi ñu toll nii moom mi doon wax ne réewi Afrique daanaka dugguñ dëgg-dëgg ci histoire tey jile moom ci boppam moo dugg ci histoire waaye duggin wu ñaaw kan mooy am ndam dëgg-dëgg ci diggante Sénégal ak Ouzbékistan tey jile bu 16h30 minutes jotee stade kay ni jongante bi tey jile lañ koy amal jëm ci wàccaayu coupe du monde Sénégal Ouzbékistan tey jile bu 16h30 minutes jotee